ziar bu baax itam sëñ abul baraka moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ni ba muy sàkku ji ndigal li dañu woon sëñ Muntaxa dañuy ñëw di sàkku ndigal boo nee du am du am mun leen jox leen ci ndigal ni leen nañu sàmmoonteeg jamono ji li mu laaj yëpp ñu def ko ci moo tax mu mel nii mu mel waaye ku nekk xam nga ni nit ñi seen xel ci Cheikh Mamadou faadal ëpp na lii ba tax na ñu ngi ziar njabootu cheikh Mouhamed Fadal gi yëpp rawaate na nag cheikh Mouhamadul Amin mi sëñ Alaaji Baara moom sëñ Maam sëñ Maam mi nga xam ni taxawaayam bu ràññiku taxawaayam bu rafet ak bokk ci nangug ñaanu cheikhul xadim bi mu ñaanoon ci njabootam wa hëb lana zuriyatan tudim al amala saalixa yaa xadim zuriyatan tayibatan tujaddidu nahja nabiyul mustafa tajtahidu moo waral lépp lu yëngu ci diine ji rawaate na alxuraanul karim li gënoon ñor sëñ tubaa ñu féetale ko ñu fekk fi nag njabootam tudd nga leen léegi njabootu cheikhul xadim ndax sëñ bu mag bi bu bu ko bu ko borom saam fekk see sëñ ba numbee fekk si ka doy naa yem de loolu rek doy na bu ma tuddee jëmm yii rek doy na sëkk kon ni nga ko waxee léegi ñu ànd ak ku baax maa ngi gis léegi Cheikh Abdou moom sëñ Moutala moom sëñ Abdoulaat moom it am taxawaay bu ràññeeku ñëw moom it soxna Mouminatou Kébé mi ñu àndal nag moom mooy borom kër gi te mu leew ko itam ndax sëñ Maamoor mi ma tudd léegi bi yàlla dogalee mu am sëñ Baara mii diir bu gàtt waajuram wu baax wee dafa wàcc te mu gërëm ko lool moom ci boppam moo yëkkati sëñ baaram may ko soxna Momy moo tax ma ni soxna Momy fii lew na ko doom ndax kër doomam la ñëw te loolu maag sëñ aada xasaayit mii sànq ci tisbaar sëñ ba sëñ Mamor fe feddaliwaat nañu loolu ndax ñoo fa demaloon soxna si feddaliwaat nañu may gim ko ko may ak gërëm gim ko gërëm ci téye bi mu ko ko téyal ndax dafa gërëm waajuram wii te xam na ni bu fi nekkoon. dan du du du ci du weesoog sëñ Baara fii soxna Momy toll moom. làmp tiim Sëriñ Touba ba jamaa nekk ci. or or nekk ci ca booba jamono tey jii valeuru jamaa la bu fi nekkoon tey jii jamaa lay doon nga tiimale Cheikhul Khadim làmp boo xam ni boo doon wër ci àddina bi doo bare foo koy gis mu def deux tonnes muy tiim. Cheikh Abdoul Khadir mii jiite jumaa ji ak yi mu àndaloon yëpp ba sëñ Abdoul Khadir bu duggee ci jumaa ji mar bi bi Alaaji Njuga lampi kayitim Alaaji Njuga mu ni saa yu ma duggee ci jumaa ji sama xel dem ci Alaaji Babacar bi Njuga jëf la muy la daloon Cheikh Issa Diène ca njaareem sëñ Touba ni fu ma romb ñu naan ma bul fàtte Issa jëf la ndax bagage di jox ki fi nekkal sëñ Touba ayu bés bu nekk fukki million sëñ Touba Cheikh Abdoulaye doomu sëñ Touba yi mu jamonoonteel yëpp góor ak jigéen bu toogee tuuti daal di rangale ay oto ay Cadillac la jëkk rangale ay Mercedes la fi bàyyi Mercedes ñu bari ci yéen ñi gis ngeen Mercedes yooyu gis ngeen bu sëñ Abdou gis ngeen bu sëñ Abdoul Khadir gis ngeen bu sëriñ Saliou gis ngeen bu sëriñ bu gis ngeen bu sëñ Moutala kazalika naka noonu soxna moom mi mi mu ko dippee moom mii sànq sëñ Abdou bi ñu mu fa yónnee maag aadama mii sëñ Abdou Fada daf ma ni bi may xamanteeg alaaji Babacar Kebe Ndiouga yéen de fii war ngeen fi ñëw war ngeen ko fi ñëwal ndax bi may xamanteeg moom booba bu ñu nekk nekkandoowee kër soxna muum yi muum sëñ Touba ci pantare ba lay fanaan booba ñaar fukki dërëm yoru ko waaye fàttewul loolu de bi mu demee ba yàlla dogal lii ci moom fàttewul digganteem ak soxna muum yi moom noonu la meloon ci moom meloon ko ci soxnaa su gaawaan meloon ko ci soxna mbenn ngaabu meloon ko ci ki nga xam ni mooy soxna Maymunatul Soxra mboolem ñi mu jamonoonteeg ci jaboot sëñ Tuubaa gi juróom yi ci xam yu góor yëpp ma limal leen léegi ak juróom yu jigéen yi ma ci xam yëpp noonu leen Alaaji Babacar Kebe jóg doon tarale kon kooku ci lenn ci yi mu jëf rek ci yoon wi ak yéeneem ci yoon wi dem ba sa xërte yóbbe la nga ni xalif général des mujj de benn taalibe képp mësu koo yëkkati waaye danaa ñaan sa ñëpp laat mu ñëw ndakaaru ca la jëkke ca la dugg na ci histoire du dañ mukk ñeent fukki at ak benn ca ren jii ndax la woon yàlla dogal na man mii bokk naa ca ña demoon ca ngan googu keroog laa ko jëkk gis it astafurlah waaw boobu sax laa ko jëkk gis ndax jëkk naa dajeeg moom 1977 ci inauguration Juma Touba mars 77 waaye boobu gisuma ko dama ko dégg rek dégg nga it weesuwul ba sëñ Touba Cheikh Abdoulaye di waxtaan ba ne axsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa xibbun wa ma abaaw yabaaw mu yooxu ba sengoor ni nii ñu gis borom ndombal baat ñu ne Alaaji Njóoga Kebe la bi ma ko gisaatee jëm ci sëñ am sëtu Mbàkke mu borom daaru ndax booba ñi ma àndal dañ ni nan jaar ci sëñ Amsatu ndax kenn ci ñoom dafa mujjatu sëñ Amsatu mu ni bu ñu jaaree sëñ Amsatu daanu siyaareel sëñ Ablaat ñu jaar ci sëñ Amsatu mu dajeeg mu koy indil añam moo yenu añ bi alaa njóga ke bi ñu ni kii mooy njóga kon kooku taxawaayam ci kër sëñ Touba bu doomam amee taxawaay bu mel nii jaadu na waajuram wu jigéen wi ko jullit yow yaa ngi foon sànq rek ñu ngi koy waxtaane générosité booba jamono li muy maye ci xaalis ku mu may nga tiit rek da nga naan moom yamula kenn mooy sëñ Fallou loolu nag moom la sëñ Baara mii moom sëñ Mamor moom la nàmp moo tax it mu mën a jaxasoog ku mel na soxna Muuminatu Kebe mii nga xam ni mooy waajuram te ni ma ko waxee léegi sëñ Mamor jox ko ko may ko ko ni ko may naa la ko ngay waajuram ndax yéene gërëm naa waajuram wu jigéen waaye bi mu ko amee rek daanaka la fi jóge mu taxaw nag féete ko fi mu ko war a féete yóbbu sëñ Bara it xam loolu xam ni lii xéewalu sëñ Touba la woo xam ni sëñ Touba mbiram daa war a yaatu mu yaatal ci ñëpp.